ñu am yeneen leer yeneen leerlaat ak yeneen yaatal yoo xam ne ñu ngi ko yaatal ci liggéey bi tabaarakallaa ginnaaw yoon wi njëkkoon nañ fee jaar doon leeral ci lu demee ne mbirum sëriñ ba njëkkoon cee leeral lu deme ne sëriñ ak lasraar ak njabar waaye ba tey mel ne waneen soppee ko da ci amaat woo xam ne danoo bëgg gën koo leeralaat ba nit ñi gën koo bàyyi xel muy ko demee ne sama classe gi nga xam ne day nekk ay ndaw lool tëb tëb rek dugg ci mbirum lasaraar te xam gi du demee noonu walla it ba xam gi demee noonu it maanaam dëgg-dëgg maanaam li waral maam def gi moom duñ ci yem maanaam dañuy wax ne maanaam mbirum sëriñ day ay mbir ay mbiri mbir yu bokkut bu fekkee ndaw te nga xam ne yàlla dogal na nga gëstu lasaraar ba xam ko ba man ko am lu bari loo xam ne xam nga ko ci moom na nga yem ci dëgg-dëgg rek mooy li nga man waaye danga bëgg doon yem ci nekk ci lii nekk ci li nekk ci lii lenn lu nekk nga bëgg ko laalaale loolu bu yàggee day waral ak jaxasoo wala mu waral ak loo xam ne ak lënt lay doon ndax ku demee ne gone am na yu demee ne ay faj wala yu mel noonu ko teelee jëltee rek njëlbeen gi man na ci bañ am benn jafé jafe waaye fa mu koy gàllankoore moy bu ñëwee ba ci kanam té dañuy wax né aduna li ci gëna am li ci ëpp solo mom moy ak mujju gu rafet sa ngil ben lu mu rafet rafet wala lu mu neex neex sa mujju gu wu mel non rek day mel ne du doon dara lo ma doon am ci aduna jamono bobu rek lepp mën nga ko jëlaat defar ko ci té du tax ma am sa say mbir jak lol dal la amone sey dañuy leral ba lañu dugg ci waxtane deug deug ndax mën ngaa am lu ne si àdduna nag si mbirum ñaan si njëlbeen gi waaye boo demee ba ci kanam maam diir bu néew rek lu ci bëri mën na la arrivé maam loo mënoon am ay say beeg say kër ak sa lépp mën nga ko jaay ngir fajoo ko te du tax maanaam mu sotti nga xam ne boobaa jamono boobu ñu la doon dikkal maam mën a mën a nun mën a toll ak nun mën a mel rek ak nun mën dara ju mën a am du ñoom ñoo lay faj danay lay wan gannaaw demaat si kaneen kon ñi ñi nga xam ne ñoo ci nekk war na noo mën a xam suñu bopp bu baax a baax baax xam si li ñuy dugg xam bu baax a baax si li ñuy dugg mooy lan bala ñu ci bala ñu ci def kenn koo xam ne ñëw na ci yow dala def loo it bala ngay def nga xam li nga koy defloo mooy lan xam lim lay defloo mooy lan yow nga xam li nga koy defal mooy lan hmm. hmm. waaw dëgg-dëgg ñaan moom mooy comme li ma njëkkoon a wax rek maanaam ci ci émission bu njëkk bi mooy ki nga xam ne day jaamu sunu borom subhaanahu wa taala maam di ko di ko jam, maam lek lo lew di jam sun borom kom kem katan ni mu ko diglé lo ci man bako defé sa saa ñaané rek sun borom man nako ko nangu ndax ki ñaan di nangu ki ñaan muy nangu moy ki nga xamné ni day lek lo lew maam di di sol lo lew dekk fu dekk fu lew manam di jam sun borom kem kàttanam saa su ko defé rek yalla man nako ko def xayna na donte ne yombul sax waye sa kem katan lang ci man nga koy def ba nga xam lepp lu ci ñew ci ak njumte nga xam ne ak njuumte lay doon waaye du doon loo xam ne yow sëg bëgg-bëgg lay doon. ku ne gis na ne jamono ji ñu wees maanaam wàllum actualité. day hmm. gis ne léegi-léeg xeexoo day am. léegi hmm. gis ngeen lenn ci ñoo xam ne dañuy génn di wax. Hmm. naan mbir sàngam kat. ci misaal mën nañu ko misaal ci coupe du monde. ñu bi. danañ gën euh, toll fii danañ egg foofu. te mel na loolu moom mbirum yàlla ndax loolu maanaam ñi koy wax xëy moom loolu est-ce wax wax ju wér lay doon. waaw ndax loolu moom amna fo xamne mana na fa nekkee amna na xamne amna batin wala ñoo xamne yalla def na ñu am rawhan bu wër nga xamne ne man na lo xam li li wara ñew te ñewagut xamne jamono bu ñu ko sakko xam rek suñu borom man na leen ko xamal bu dé ko am batin nitu batin suñu borom man na ko xamal li wara ñew te ñewagut waye ku sama classe gi nak ñom dañ si bëgg formation pour bu ko défé ma ma taxaw ci site internet yi daal na nangam day am ngir bu loola amé rek ñu bari si ba daanaka man dama dama seetaan lu bëri bëri si émission yi si si si internet yi nga nga koo xam ne Sénégal dana gën a puulam waaye nga léegi ñu ne dana dugal nangam naan def te ñu si wax maanaam demewul noonu nga xam xel la ñuy waxee rek maanaam si xel la nga xam ne dañ ne maam waa Sénégal maam misaal nga xam ne bi ñuy football maam waa poule bi ñu taseel ñu si bëri xaw a yaakaar ne dañoo xaw a néew doole moo tax ñu jàpp ne ñoom war nañoo mën a génn seen poule ñu bëri foofu lañ ko sukkandikoo rek waaye du du xam-xam du xam-xam li nga xam ne da nga koy wax xam-xam mooy loo xam ne boo ko waxee rek dara du ko dindi te lu mel noonu dañ ko fay war a jëlee dañ ko fay war a jëlee ndax moo xoolee réew Sénégal ak mboolem réew africain yi li leen li leen gën rek mooy loolu mooy lépp lu dugg rek dañ ci dugal wàllu mystique ba mu ëpp moom da nga ñëw léegi ma ne la nangam dana am nga gëm loola sa morom gëm loolu bu ko defee loolu rek loolu nga gëm rek loolu ngay jàpp ne loolu force da a fekk ne mooy waral liggéey du mën am ndax bu la da nga dugal yow ma la da dugal kii ma ne ko da nga dugal kenn ko nekk day jàpp ne moom bali bu ko rek la ko sëñ moom moo war a am moo tax maam ndam ndam di leen di leen di leen di leen di leen jafe donte ne maam uh, tubaab yi ñoom xam nañ ko xam nañ xam nañ wàllu wàllu wàllu ak ñoom ni ñu koy defee ñoo bokkut mooy waral maam ñoom ñu si ëpp ëpp rek di génn seen poul ba mën dem final ba mën a waaye ñii bu ne mën a bu ne dugal rek te eh, da nga jappal bis boobu da nga dugal bu mu ne la da nga gagné da nga jappal bis boobu mom da nga wara a gagné même bo togon football da nga yak da da ngay gagné loolu mom luñ fi wara a la wa luñ fi luñ fi wara a la bu fekkee mën na fay jógee waaw. waaw 77 190 57 36 wala 76 540 63 41 ndax ba si lamb ji sax day am lu mel non nga xamné da ngay gis ko xamné day jek jek rek nit diw moy daan nga xamné ci jamono bi mu koy wax. day xool ñaari day bu xoolee ñaari mbëri rek jàpp ne kii daal moo war a man wala kii moo opp kii war wër kii wërta mën a daan kii nga xam ne loolu bu amee rek day waral ak réeroo wala ak ak wax loo xam ne du doon xam-xam li muy ñàkk doon xam-xam nag mooy waral maam njuumte yu bëri bëri di si am ndax maa ngi la mën naa la ko message yi jamono yi Yékini rek ak ak Balla jamono bi Yékini nekkee euh, roi des nga xam ne ñu bëri dinañ a daan ñu bëri dañoo jàpp ne Balla Gaye waru ko mën a daan maam mboolem sëriñ si wax rek dana ne maam Yékini day daan Balla Gaye daan ko Balla Gaye bi ñu bëri yaakaaroon ne maanaam roi bi kenn mënu ko jël ci moom mu demee te ñu bëri dañuy ne si nekk loolu loolu war a bàyyi xel la daal ba fi mënee jógee daal ndax day yàqal ñun day yàqal wuti loolu ñoom da leen yàqal ndax yow mi wuti mooy la demal danga def nangam rek boo sukkandikoo ci loolu rek day metti ci yow te ki nga xam ne moom nga ne moom mooy féete defet gi kooku da koy jaral lu ne mooy waral maam lu mel kon loolu day mel ne daal ñin koy def loo wala sëriñ si koy def ñoom ñin koy wax ñoom ñu tudd seen i tur ñoom ñoo war a maanaam wax ñu bàyyi ñu bàyyi ko lool bu mënee nekk wala état bi nag teg si ay daan yu métti nag waaw. lan bu fekkee daal wàllu àdduna moom lépp lu waay di sàkkoo maanaam ci wàllu wërsëg wala wàllu bayre te bëgg suñu boom defal la xéewal bo binde alam nasara mam, aya bu ne nga bin inna haza la rizquna ma laha min nafadin bu ko defee nga bind ko jurom ñent yoon jurom ñent yoon yi matee muy doon jurom ñent alam nasara aya bu nek ak morom nga si inna haza la ma laha min nafadin mu def ci lem ak xorom ak sukar, di ko sangoo diirub juróom-ñeenti fan képp koo def sun bom dana ko defal walu wërsek ak walu xewal moom ku bëgg ko bu ko sun bom dana ko def ko ci yu bare bare bare jëmmi wa in yakkaadoo rek nga xam ne du jax sa faatiha boo bindee wa in yakkaadoo ba aaya bi jeex boo ko bindee juróom-ñaari yoon moo ko juróom-ñaari dégg sump sangoo ko moom dee dindi cat ak ay gàllankoor koo xam ne mettitu bopp da ko fara di ko daaneel law ansal naa hansal xuraan bu ko bindee def ko téere bopp takk ko sump mën na ko saafara bu dee góor mën na ko bind raxas di ko raxase boppam ko defee yàlla da koy saafara yu mel noonu bu dee biir bu metti it lala bi sa fi ba nii ilaa yom yom xasoon boo ko bindee juróom-ñaari yoon di ko faral di ko naan moom it day faral di faj biir bu metti nga xam daal bëri na ay bëri na ay tegtal daal bërina ay tegtal yoo xam ne daal euh, moom xëy na ñan baaxee loolu ba euh, yeneen jëmi jamono waat bu soobee yàlla incha allah rabbi waaw 77 190 57 36 wala 76 wala Dakar yu mel noonu danay faral di génn daal. waaw man nag moom damay faral di génn man danaa génn dëkk bi danaa génn réew mi waaye jamono bu ne nag maanaam bu dee kuy nekk ku nekk fii Sénégal daal saa su ma sama numéro yi moom ma jot. waaw bu dee nag maanaam si bitim réew yi moom numéro yi du suuf moo tax wax jamono bu ne ak fa ngay dem ak numéro ba ngay jël waaye fii si biir Sénégal daal ba si yenn si réew yi yu demee ne Gambie wala yu mel noonu moo woowee sama numéro orange bi nationalité da nga ma mën a jot moom waaw. di sant bu baax waa daara ji tey ñaan suñu borom yokk ko bu baax a baax a baax di siyaare kilifa yi bu baax a baax nag ñaan suñu borom yàggal fi Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Abou Baraka ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp wasalaam